dal leen nag jàmm mbokki internet yi si sen seen bi di live Dakar 221 si ay xibaar rek mel na nag di premier ministre bu bees bi di kookee di Ousmane Sonko ak kaka di premier ministre kookee di Macky Sall Kaba nekk si tey jii rek ñu war joxante rek li nga ay lenge mu di passation de service wakaman xamante ne seen rek amal nag si di Ousmane Sonko ak kookee di Sidiki Kaba foofee rek sa premier ministre nga xamante ne rek premier ministre ñu كفا عمل moo di ay joxantey legge euh, premier ministre bu senegal ak kon nekkoon mu di euh, Sidiki Kaba loola nag mu doon aw euh, xew mu mag bu xamante si ne ñoom ña ngi koy rek amal foofee rek sa premier fas keena rek joxante ay lenge mu ay premier ministre bu bees bi di Ousmane Sonko ak kaka nekkoon di Sidiki Kaba loola nag buñ sa jógee mën na na rek yeneen ministre yu bëri bëri soo moytuwulee danañ joxante tey jii rek ay lenge mu doon gouvernement bu bees bi war a nag fas commencé nag dalloo ay ministère ngi bees fas yéene nag commencé jublu si liggéey bi comme nas ka waxe woon comme nan ko digge woon li nga xamante ne si rek ñoo di askan wi ginnaaw bu nu defee ay passation de service joxante leng ba pare dane rek daati jublu rek si liggéey bi jublu rek si priorité nga xamante ne si na jamono ji mi ngi leen di xaar si réew mi rek daanaka lu si bëre bëri ay priorité moo ngi leen fay xaar lu bëri kon nag mën nañ ne tey ji rek danan commencé lu mel noone jëkkee ko sa premier ministre Ousmane Sonko kooku nga xamante ne si rek moo Sidiki Kaba ñu fas kenn rek joxante ay lenge liñ ñaar rek li nga xamante ne seen rek moo di uh, liggéey premier uh, ministre wara nag uh, Ousmane Sonko was keen doxal doxalu premier ministre daate nag taxaw taxawaay rek nga xamante ne seen moo di gouvernement bu am solo lool daat kay fas kenn liggéey jëmale Sénégal ci kanam